jërëjëf Mbacke ñu ngi jégalu di kuréel goo xam ni moo lëkkale élèves ak étudiants yi nekk biir Thiès fi ma koy tàmbalee mooy damay fàttali ci su fi sosoo sëñ Sall Touré moom moo xalaatoon ni gis na ni daara yi ñu ngi bari ci lycée yi ak université yi mu daan ne na ngeen boole yow ci benn buum daan bu ngeen bu ngeen booloo dangeen dem ba dajeeg Sëñ Tuubaa loolu di dox di dox ba nu tàbbi ci sa loxo keroog bi ñuy ñëw ci sa loxo njaaxle gu rëy lan amoon jaaxle gi li ko waraloon mooy dañoo ñeewoon lool ñi ñi ñu ñu daan nettali ci ñuy jiitu xamuñu yan pexe lañuy jaar ngir topp seeni tànk waaye keroog bi ñu dajeeg yow ci lañ xam ni daje nañoo koo xam ni. ña jiitu bu ñëwoon ne ko nañu weccoo cër mu lànk ngir ni mu def sëñ Tuubaa Mbàkke Balla jërëjëf Mbàkke Mbàkke jërëjëf ñun amuñu saw fay ndax daanaa la wax ni la daara ji boo ko doon waññi bu ñu doon téeméer juróom-ñeer fukk yi mësuñoo jaar ay daara sëñ Tuubaa moo nu fekk ci lekkool yi dugg ci sunuy xol dimbalil ñu boppam loolu nag tax na sañatuñoo jàmbat Mbàkke jamono du dox ba nga dégg ne ñoo ngi grève jamono du dox ba nga dégg ne ñu ngi ñaxtu lenn képp ko waral mooy Sëñ Tuubaa lan dëgmal te fantanoon yéene duñu dëpp loolu nag bi nga ñu ci gasandoo dañ cee yëgaat tawféex ndax gasando gi Sëñ Cheikh Abdou Latif mi màndarga la ci ndax ñun xam nañu ni gën laa jàmbare amut ci yoonu murid jël nga sa bakkan rendi ko ba mu dee ngir jaay ba ngir jaay ko Sëñ Tuubaa xam nañu itam mosuñu laa dëgmal am ci gàcce keroog bi ñu dikkee fi yow ba tey danay sant danay ciitaroo te loolu xam na ni ñu nag mboolee murit yi ñoo ko àndal Mbàkke na nga yëg ni foo ab murit ne mi ngi sant mi ngi sagu mi ngi ciitaroo lenn dong ko waral am kilifa gu mat kilifa loolu képp moo nu ko may kon ku musaana ñëw ci sa kanam wala ñi ëpp ci ñi ñëw ci sa kanam liggéey liggéey bu toll ni am na lu ñuy bëgg wala lu ñuy bañ waaye ñun bëgguñu dara bañuñu dara itam ndax bëgg ak bañ liy xëcc ak liy dàq suñu boroom da koo jël jox ko suñ tubaa te xam na ni moo gën a xam suñu bopp lenn rek lan bëgg fu nu mën a dem nag ñu fa jiitu mbàkke lu nu amut xam na ni yaanu ko yaanu ko fàggulut lenn daanaa la ko wax te mooy dëgg ci ñun ñun xamuñu fu jëm xamuñu lañ fay fekk waaye jataay bii ñuy am ci sa kër gii jur na ci ñun rafet njort goo xam ne jàpp nañu ni ku jiitu ak ñee ñëw duñ leen ñee ngir xam na ni doo ko seetaan ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke ñu ngi lay sant sant goo xam ni amut fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem mbooloo mii nag ay gone lanu te gone baaxoo na doxee bëgg waaye li ci ëpp duñ doxee xam waaye dimbali nu mbàkke ndax noonu yàlla bi mënuñu ci moom dara waaye yow xam nañ ne foo ne du foo ne du fa xandaalu ngir sëñ Tuubaa nga àndal kon dimbali nu mbàkke ñoo ngi yalwaan ci yow ak ndimbal ñoo ngi yalwaan ci yow ak ndimbal ndax Ibrahim dañ ko waxoon mu rey doomam waaye yow da rey sa bakkan ngir sëñ Tuubaa loolu nag xam na nu ne Ibrahim bu ñëwaatoon jamono nii nga def lay def mooy jox Sëñ Tuubaa boppam loolu nag sant nañ ci baax ñu ngi sant bu baax itam sëñ Ibra Gueye ak sëñ Ibra ture magal nan nu gunge nan nu sëñ Cheikh moom amuñu fayam damay wax ne liñ ko yéene mooy liñ ko yé liñ liñ bëgg ci moom mooy kenn du ko ëppale ngërëm ci yow loolu moom li ñuy ñaan biir ak bët yi daaw nag am na lu tawféex ndax bi jataay bi tàmbalee da wax ni boole naa nag daala Hizbut Tarqiyyah na ngeen jàppante loolu ñu ngi lay seedeel ni sëñ Yuusu jox na ci jéego yu sori ñun itam nangu nañ ko ndax xam na nañu ni ay silmaxa lanu waaye ànd nañoo njàccaar boo xam ne xam na fa mu jëm te waaye ba mu war a yor yor na ko kon jërëjëf Mbàkke ñu ngi jégalu baax kàddu gi